ñu doori xibaar yi kon ak lu ñel mouvement bi ñu wax la mafia kacc kacc ñu daal ñoom fi mu nekk nii nag gannaaw ba nga xamante ni teg nañu loxo ñaar ñu bokkoon ci ñu ñaar ñu bokk ci ñoom koy wax kenn ki Ousmane Diagne kenn ki Papito Kara am na nag ñetteelu nit boo xam ne daal bokk ci ñoom yoon teg na ko loxo bu ñu sukkandikoo ci yenn kaay bii di le quotidien moom mi ngi tudd Gilles Aloise Fay moom Gilles Aloise Fay mi daal dañ koy tuumal kat ne dafa lubal ci ay ay koppar lu toll ci juróom fukki millions 50 millions de francs CFA daal yoo xam ne daf ko lubal euh, daal lañ koy tuumaal bu sukkandikoo ci yenn kaay bii di le quotidien ba nañu daal fi mu nekk nii nag ma nga rëbës moom nag mi ko jaare ci ab société boo xamante ni ñu ngi koy wax Azur automobile bokk ci euh, groupe Azur euh, moom daal moom fay mi daf ca jaare woon nag daal de luy ay oto yu ak a jaay ay oto yu bakkane ay ay voiture de luxe daal nag nañu lu toll ci juróom fukki millions de francs CFA yoo xamante ni daal moom ña ngi ko cay joxoñ baaraamu tuuma loolu nag moo tax ñu teg ko loxo ba fi nekk nii nañu ma nga ca rëbës tey lu ñeel mbir yoon kii di Moustapha Gaye nekk ci société bii di Dakar Dem Dikk nekk fa receveur bu sukkandikoo ci yéenekaay bi de l'Observateur daal nañu dañ koy tuumal nag faat doomam ju góor ju am fukki at ak ñeent moom Moustapha mii ay koppar yu ma dencoon ci biir këram toll ci onze mille francs de CFA koppar yi réer mër mu daal di nag ñaaw ñaawoon njort lool ci doomam ju góor jooju yi woo ko nag di ko laaj laaju métti métti ba xale bu góor bi nag mujj nag nangu ne moom mii moo ko jël mu daal di mer lool moom Moustapha dóor dóor xale bu góor ba dóor yu métti métti ba xale ba jaara fa wuy ji boromam ginnaaw noonu itam ci la tiit daal di nag jéem a wuti nag certificat de mort naturelle seeti benn xarit médecin bu ñuy wax euh, bu ñuy wax Moustapha Sarr Moustapha Ba ak keneen ku ñuy wax Ibra Sarr ngir daal ñu daal koy bindal ay kayit yoo xam ne kat seen doom ji dafa faatu naturellement. ginaaw bi nag ba ñoom yàlla mujj nag weer leen ba tax démb daal demoon nañ eh, ci tribunal bu dakaru mm, dakar loog gis ba ñoom daal nag ñu leen di tribunal mooy eh, ay door yoo xamante ni da dangaa door nit ba mu faatu waaye itam resel de cadavre muy jéem a suul ak néew te amuloo kayit ya nga war a am ak itam non assistance à une personne à danger ak itam complicité de resel procureur bi nag moom mi ngi sàkku ñu daan leen toll ci juróomi at kaso ñu avocat yi leen doon layal itam ñu dal ñu ngi sàkku itam ñu am ak yërmande ci ñoom ñu nak atte ba nak muy délibéré ba dañ ko mujj xam dal 12 août muy fi ba ginnaaw dal ba daañu nak mujj xam ñom ñooy seen mbir nak la mujjé où la société civile existe des comptes à Amina Tambeng Ndiaye après six ans de gestion ko kuréel li nga xam ni moo lëkkale société civile yi ñu koy wax le collectif. des organisations de la société civile ñu ngi tek pression bu metti métti ci kaw ki di Amina Tambeng Ndiaye di sàkku ci mom mu indi ay leeral ci na mu yore woon kër googi di au conseil des collectivités territoriales ba tey euh, moom kuréel gii lëkkale société civile yi ñoom daal nag ñeen dëgg-dëgg nag kuréel kër gii di au conseil nag dëgg-dëgg nag dañ ko war a tas gis ñu ñam te li ci gën a doy waar mooy at mu nekk dina coûter Sénégalais yi lu toll ci juróom-ñetti milliards de francs CFA ba dal daal ñoom ñu ngi sakku ci opposition bi ak ci pouvoir bi yépp yëpp ñu tok ci benn table waxtane kër gi di la au conseil ba xam nak dëgg dëgg nak am na njariñ ngir wër ko wala déet ndax élection mi ngi war a ñëw le 4 le 4 septembre bi ñu dëkkmal waaye daal ñu ngi ci pouvoir bi ak ci opposition bi ñu table wax daal dëgg-dëgg nag càmbar kër gii ba xam ba xam ko wala ñu lañ ko arrêté la mooy ñu arrêté kër au conseil des collectivités territoriales ndax nag gisuñu benn njariñam taat mu nekk itam mu jar mu lu milliards de francs CFA